bërëb boo xam ne bii boroom daaru ah moo waral lim defal sëñ Touba tax taalibe yëpp bépp jullit di daje fii chaque année ci màggal gi nga xam ne gi màggal gu am solo la bés boobu nag bu amee gouvernement bi def ci taxaw comme ni koy defee ci biir religieuse yëpp fexe ba nga xam ne ndox nga xam ne mooy priorité numéro un mën a bañ a manqué tàngoor bi mu ngi dugg nit ñi dañuy aajowoo ndox à tout moment mënul nekk loo xam ne lii dafay manqué ci bés yu mel nii moo tax tey jii donc ñu ñëw pour ziare si mais xool également liggéey bi nga xam ne bii commencé nañ ko fii mu dem ci entretien wu forage yi. entretien wu château d'eau yi xool réseau bi ànd ak les autorités administratives le sous-préfet ak ñi nga xam ne ñii également ñoom la sëñ bi dénk mbir mi di toppatoo ndox mi jéem a xool loolu ba nga xam ne buñ defee lépp li nga xam ne lii séentu nañ ko xalaatoon nañ ko ci comité d'organisation bi ndox mën a bañ manqué bés ba donc loolu moo waral suñ tànk tey jii fii te liggéey bi commencé na door na am na ay problèmes yoo xam ni déjà équipe yi détecté nañ ko macha allah saafara nañ ko te yaakaar naa ne disposition yi nga xam ni moom lañ war a jël pour indi ko ci ay bâche indi ko également ci ay camion citerne avant bés bi di ñëw buñ ko defee comme niñ ko def woon bu yàggul ca Poroxaan ak euh, ca Daaka ga donc Medina Gunaas yaakaar nañ ne incha allah rabbi ci barke sëñ bi problème donc moo du am